nuy nañ leen yéen euh, mbokk internet yu ñuy seetaan ci seen chaîne Dakaractu TV am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat ci seen émission en ligne ñu baaxee di ci dalal souvent yenn ci ay woy politique wala tamit ku nekk ci fànn bi nga yëngu fii ci réew mi te nag ñu am mbégte bu baax a baax di dalal keneen ñu koy ñu wuyoo ci turu Pape Songde Pape Songde Diop di maire bu commune bu Gandiaye euh, nekk acteur politique bokk ci euh, parti bi di APR d'ailleurs sax moom moo. Euh, yore li nga xamné mom modi poste trésorier général ci cadre yi nga xamante ñom ñoo nek ci parti bi di alliance pour la république te président de la république Macky Sall djité ko monsieur le maire am nañ mbégte bu baax baax di la dalal ci seen émission en ligne. Mmh. ma am mbégte aussi di leen euh, di leen nuyu di nuyu waa Dakaractu di nuyu seen internautes yëpp ak ñi ñuy suivre rek euh, di gis di leen sante di gis aussi liggéey bi ngeen di liggéey ci Dakar Dakaractu muy lo am solo ci nga xamné ci paysage médiatique bi Sénégal. absolument alors euh, monsieur le maire avant de démarrer émission bi ñu wax ci rek ci actualité bu ndaw par rapport ci yenn fànn yi ngi leen doon gis temps yi te xalaatuñ la ci woon mooy ci mbirum wàllu tàggat yaram mhm. euh, gis nañ ci wàllu beach soccer Sénégal qui at yu ñu weesu def na ci ay euh, exploit yu mag mhm. demoon sax ba doon troisième mondial su ma jumul mhm. waaye ren ci mbetteel bu mag gis nañ ne bokk leen ci li nga xam ne di coupe du monde bi nga xam ne ñu ko amal Australie mbir mi nan la fa demee Sénégal beaucoup de participation c'est vrai c'est ci mini foot y mhm. euh, ñun ñoo le comité pour le développement euh, euh, et la vulgarisation mini foot. Mhm. mini foot football le bon xam Vous commencé xew ci àdduna bi le à 6, maintenant, benn nous lay doon cinq jours de champ. alors sous le président Cheikh Mbacké Ndiaye jiitu ko biñ ci le comité de ba a def une dem nañ compétition coupe du monde Tunisie 2017 des médaille d'argent il équipes a équipe des champions du monde France Portugal Roumanie donc y a médaille médaille de bronze le troisième mondial y a dem euh, Coupe d'Afrique euh, Libye euh, am médaille d'argent, c'est parce que finale. Hein, même le pays organisateur la Libye avec de grands pays de de mini-foot comme comme la Tchèque République Tchèque Roumanie et tout donc am médaille d'argent donc muy ñaari médaille ci ñaari participation mhm. alors daaw aussi ñu dem ci U21 on a été quart de finaliste donc ren nak ñu waron dem ci coupe du monde bi Australie mais il dogal na euh, mu am ay problème ci obtention visa bi ak yoyu mais vraiment on nous attendait là-bas parce que fim nek ni Sénégal fu mu dem ci mini foot bi favori les mhm. mais ce n'est que partie remise donc nous avons préparé une Coupe d'Afrique en 2020 au Nigeria. Je mhm. crois qu'on va bien le préparer. Mhm. Mais le mini-football doit une discipline que nous vulgariser mhm. parce que euh, notre temps de participation, nous avons des médailles. Donc je crois que Taïdini, nous amlo des choses nous avons des Japon, Taïdini, nous avons des choses au-delà du football que nous avons, nous avons des choses qui sont en Mais si vous le mini-football, euh, soo gisee président Cheikh Mbacké Ndiaye ak euh, secrétaire général bi Aïssatou ñoom bokk nañ instance internationale <laughs> donc instance mondiale yi bokk nañ ci kon am nañ Sénégal am na représentatif foofu mais booy xool mini dina yomb dina neex a tasaare ci biir dëkk parce que daanaka petit camp la absolument foo dem Sénégal nit ñi dañuy fubal petit camp <laughs> donc les sport boo xam ne d' abord dafa baax parce que booy xool tous les grands joueurs brésiliens mm-hmm. ngay gis nii du futsal absolument parce que technique vivacité am rapidité et tout donc vraiment c'est des joueurs qui sont très techniques. Pareil, mhm. pareil, nous sommes au Sénégal Nous sommes au Dakar parce que terrain am terrain petit mhm. tout ça là donc football développé bon nous le comité euh, comme nous devons commencer, sous devoir moins nous vulgariser mhm. terrain donc on a en vue je crois que bés boo dajee ak président Cheikh Mbacke Ndiaye dina la wax on a de grands projets pour ça moom moom moom je crois que mun na la expliquer yëpp les tenants et les aboutissants mais daal mhm. en un mot liñ bëgg mooy mini foot bi ñu wasaare ko biir Sénégal te du neex a def la football à 5 football à 6 petit camp ku ci nekk ñun bu nga nekkee xale da ngay petit camp ba léegi sax mag ñi petit camp la ñuy def donc luñ football à donc sport la boo xam nous avons ko vulgariser Sénégal donc on a envie un championnat mhm. euh, on a vu l'organisation d'une coupe du monde bon il y a des c'est de grands projets pour le milieu. parce que y a deux yoo xam ne yu bëri am championnat professionnel mhm. même Tunisie bi am na. Mhm. Libye am un championnat professionnel. États-Unis c'est les champions du monde am un professionnel tchèque donc tous ces grands pays de football ont un championnat championnats professionnels ah. dire que c'est un sport qui a de l'avenir et avec euh, la diligence et l'engagement du président Cheikh Mbacké Ndiaye. yoo xam naa ne dinañ dem fu sori quoi incha effectivement may fàttali ci comité bi sax yooyu yaay président d'honneur bi. alors euh, ñu dugg ci euh, wàllum réew mi. Mhm le président de la république yow Merna, nga euh, juma juumul war na recevoir yenn collectivités territoriales yi Al mhm. alxames ji mhm. alors mu tombeek li wax euh, presque phase 2 mhm. de l'acte 3 de la décentralisation di réforme bi nga xam ne lañ des collectivités locales alors euh, bu ma juumul xam naa ne bëri na lu bëree bëri li ngeen di président de la république je ngi parfois yenn ci nga xam ne ñooy ay maire yu nekk APR Ablaye Balde waxoon na fi ne au lieu mu donne transfert de compétences transfert de problème la problème la waaw alors <laughs> monsieur le maire d'abord abord tey nan nga jàngatee li nga xamné moy acte 3 hmm. ak mise en œuvre bi. Hmm. surtout yow mi nga xamante ni maire bu nek ci ap euh, commune bo xamné c'est un peu éloigné de la capitale. Hmm, waaw li ma ci mun li ma la mun wax moy d'abord dañuy saluer l'idée idée. du président bu mu jëlee acte 3 mettre en place parce que à brûler il buy dox. dafa war a réformes majeures. donc je dama jàpp que acte 3 de la décentralisation réforme majeure Pour amener le président dans la poursuite de la politique de décentralisation acte 3 de la waroon am def nañ ko man dama jàpp ne amul luñ ci rëccu lu ñu def la. mais réforme boo mise en œuvre le début du problème mais nag boo xoolee les li réussir d'abord communalisation intégrale on a presque plus de 500 et quelques communes que les communes ont amaguñ mhm. mais commencement mais vrai transfert de compétences on nous a transféré des problèmes mhm. on nous a transféré des solutions mhm. mais c'est tout à fait normal solution est dina on après 5 ou 6 ans boo xoolee acte trois de la décentralisation li mu mu commencé may jéego euh, maire Mairie, nag xam nga mairie moom mooy loo xam ne gestion de proximité. <laughs> mooy li nga xam ne mooy li gën parce que képp ku nekk ci territoire communal bi dafa jàpp ne ay problème am yaa ko war a faj. <laughs> et que mairie bi mën na lu ne. des <laughs> mairies, yi ñëpp xam nañ ne de petit budget surtout les mairies des villes intermédiaires ak mairie yi nga xam ne mooy mairie yu <laughs> man sax sama commune mairie acte deux là, parce que c'est une commune de 1996. tout à fait euh, donc mais yooyu c'est le petit budget yoo avec beaucoup de compétences transférées yo xamné ne mairie lañ ko war gérer. <laughs> muy lo xamné casse-tête lu la. Hmm? donc boy xol la santé la culture, la jeunesse lo yëpp nga bu ko def ci ay budget yo xamné mairie yi recette. <laughs> ça c'est un problème donc loolu lañ war mëna nak a nag après 5 ans, 6 ans de mise en œuvre, le rôle Fintol, Diego <laughs> Indef, Limbaradef, redresser. Je crois que l'Oro inspiré le président pour que nous puissions nous aider à la Nous avons aussi le développement, je vais vous dire, le réu, le réu, si nous développons, nous développer. Mais si nous devons développer, nous devons développer. Absolument. Comme je l'ai dit en français, le développement il sera local ou il ne sera pas. Mm-hmm. Donc, localité bune de pouvoir exploiter et potentiel am plan de développement local c'est important moom mooy tax réew mi mën a donc président Il ci maire yi mun naa ne bu ñu gisee dinañ échanger Définir na ay jéego si mais des na. booy mhm. xool tey man évaluer par exemple l'actualité de la décentralisation au-delà ñu def communauté rurale amatul lépp ay communes ñëpp bokk yem amatul réew taax réew àll loolu déjà c'est une avancée. Mhm. au-delà de ça am na peut-être état bu ngi def effort booy xool tey jii nii par exemple mettre en place PACASEN benn programme la boo xam ne programme test la. Mhm. pour cent vingt trois communes cent dix neuf milliards yoo xam ne dinañ essayer fexe jox yenn communes yi jox leen doole boo xam ne lu bëri dinañ ko mën a defal seen bopp. Par exemple, des communes comme nous, commune de Gagnaï, on a 300 millions sur 5 ans, 300 millions, c'est deux fois ou trois fois notre budget mhm. propre. Mhm. Hein? l'eau, nous bu année bi donc dañ koy élargir si une communes déjà c'est des ressources qui sont ne pour communes pour que nous nous en charge des questions de développement local. on a une réforme celle là patente bi l'importance. importance. Mhm am na collectivité yo maire yo xamné tay sen sel jot nañ ko non pas pas jot nañ ko mais jot nañ sen notification de lañ ci am dinañ ci mëna a faj soxla yu bari manam sen fonctionnement yeeg yooyu mhm. donc lolu c'est des avancées wala ko nak les plans locaux de développement yi nga xamné ne ñu ngi koy def ak au niveau local au niveau des des départemental ak au niveau au niveau au région nationale mhm. waxuma la nag pôle de pôle territoire yi nga xamné ne dinañ kii donc acte trois moom mooy génnee ji communes yi mhm. ci li nga xamné moy manam difficulté yi ñu nek mhm. mais état bi aussi dafa war gëna gor a góorgóorlu gën a transfert yi parce que nit ki bu noo ko né do ko wutal

donc nous on a aussi une président nous avons am mhm. président monu la mhm. maire. xam mhm. difficulté yi ci aussi Yakar, am développement local parce que développement local mon moyen mon moyen donc euh, gis nañ en un mot. Euh, c'est une rencontre boo échanger ni ne pas dans le processus de décentralisation le processus de mise en œuvre de la loi de la décentralisation bi nga xam mairie vraiment gis nañ loolu voilà euh, loolu dëgg la parce que il ngeen a ci président de la république état fonds de dotation mais beaucoup y tamit ci acte 3 nouveau mécanisme Euh, de recherche de financement que mhm. maire bi bu mu ne yàq ne yasal rek mhm. waaye tamit am xel yu ñaw yoo xamante ni dina ko permettre mu lalu pexe yoo xam ne mhm. ñooy yokk ay ressources am waaw évidemment xam nga wuti ay partenaire mécanisme de recherche de financement dafa am loolu maire bu nekk yaa xam na ngay tojee sa bopp dina ñii dañuy dem à l'extérieur wuti ñii partenaires yi dañuy ñëw ñii dañuy imaginer des des des des des des processus ou bien des des méthodes yoo xam ne bu ñu ko defee dinañ mën a gën a parce que commune bi aussi war tam compter sur ses ressources propres léegi gis commune boo xam ne vingt neuf village la benn marché la am amul recette hmm. hein loolu il faut que mu am vraiment capacité pour mun lever les fonds mais nous aussi dafa am limite parce que am na ñoo xam ne bu ñu ñëw di investir dañuy laajte garantie souveraine de l'état voilà wala dañuy laajte assurance garantie yoo xam ne commune tout à fait mais établir, mettre en place des programmes. c'est destiné aux communes par exemple PUDC il hmm? y a Promoville il a sur sur les investissements sur les infrastructures hmm. bon Puma vraiment il y a beaucoup de communes qui ont bénéficié de forages d'électrification d'adduction d'eau il de millions de mhm. donc il faut que problème il faut d'abord au-delà du fait que programme est à mettre en place nous disons ko concerté ak collectivité territoriale nous avons dit. qui mhm. est toujours war am baatam ci li ngay li nga effectivement ce que tu fais pour moi sans moi et contre moi. effectivement benen bi ci dess nak moy am na yenen instruments yo xam nak mairie aussi ku ci nek yaay wara a mën dem job jóg sol sa dàll dem wuti ko. Mhm. man par exemple nous on est on est on a des un partenariat très diversifié très varié hein ñu ngi waaj def zone industrielle par exemple. Hein? Hein? avec la prosie, collaboration avec la Prosi Nous avons waaj def benn zone industrielle pour attirer les investissements pour préparer aussi euh, l'arrivée du du de l'autoroute à péage mm-hmm. bi nga xam ne Gandiaye dafay am Bretagne. Sur aller le port de Kaolack qui, nga xam arrière pays mm-hmm. donc il y a autant de perspectives yoo xam explorer pour que nous commune avec la Absolument. Si, si, si, moins innovant et nous de financement, et souvent, je li que euh, la coopération décentralisée mais est-ce que la coopération décentralisée pour développer développer commune bon euh, man dama que hmm. nit ki c'est-à-dire personne ne pourra le développement de nos collectivités locales à notre place ça c'est vrai que la coopération décentralisée nous n'avons un levier mais pas le levier pour le développement des collectivités locales nous n'avons un levier par exemple peut-être mu xam ñoom coopération aujourd'hui coopération décentralisée ci lu bëri ni ngay gis nii. dañuy ñëw defal la benn école benn salle de classe benn. man moom lu ma ci ràññee mooy ay ay ay lal lay joxe kii matériel matériel yi recyclé. or or léegi nous, les collectivités, on a besoin d'autres choses. Absolument. Hein? On est, on est, on est des, des, des, des, leviers pour le développement local. C'est non levier pour le développement. Le levier pour le développement local, c'est créer une véritable économie, du moins aussi. C'est comme on l'a dit français, économie circulaire, locale. Madame, très bien, ça gox la fa nek muy nous ma muy cham bi muy leneen da nga koy valoriser mm-hmm. ña fa nek mën ko jëriñu tout à fait man ñun liñ bëgg par exemple ñun gànjaay bu dee muy yàpp duñ ko jëndi feneen ñu di ko gànjaay bu dee jën mu di fa jóge ah bu dee légume xale yi di ko béy di si jëriñoo bu dee ak lu mu ti doon mu nekk loo xam ne économie locale la mooy tax nit ñi am jëriñu mu nekk am consommation locale boo xam ne moo loolu mooy indi développement mais boo ko bëggee yaakaari feneen jeune ne crois pas que mu nekk loo xam ne Euh, ce sera pas endogène Vous mais du population tout à fait parce que population aussi il faut que nous un pouvoir d'achat. pour nous un pouvoir d'achat, il faut que nous liggéey. Hum, hum. mbéy dañ jeunesse peut-être au delà de la formation et tout qui retourne aussi vers la terre vers leur localité pour qu'ensemble, ensemble nous la main dans la main nous nous qui mais bu ci boo bàyyee xalé yi ñu dem. Mhm. ngay yaakaar tuba bu joggé fi wala keneen ku joggé fi ñeu indi la benn conteneur fu gi jaay wala ñaari lal. wala mhm. ñaari lal médiatise ko foto ko def ko fu ne. Mhm. ça donne l'image d'une Afrique pauvre. absolument qu'on va toujours aider. alors que nous devons prendre notre destin en main au niveau des collectivités. et effectivement pour jéxal le chapitre bobu HCCT est-ce que impacté na ci sen euh, vécu depuis son avènement ba légui Bon, HCCT, euh, c'est une institution où peut-être c'est les politiques qui sont représentés. Mm-hmm. Bon, euh, nous avons fait des propositions. Mm-hmm. Mais nous avons fait une mairie, peut-être c'est des propositions qui sont faites. Nous teg ci table président bi institution bu am njëriñ la mm-hmm. te xam naa ne bu ñuy dajee ak ñoom bu ñuy président peut-être xalaat yu bëri dina jóge ci une institution yi dina jóge ci tous les acteurs ils nga xam ne ñoo autour des collectivités parce que du maire rek il y a le maire, il y a le président du conseil départemental, il y a le HCCT, il y a le conseil économique, social, environnemental. Donc tous ces éléments réunis, qu'on nekk des indee sa des ak sa gis réussir la deuxième phase de la de la tout à fait alors Pape Songde, au delà du maire que vous êtes comme nous le koy vous êtes politique a yaay trésorier général Madame Kopargidal, qui daal ci cadre ñi nga xam ne ñoom nekk ci parti bi di APR yaay trésorier général alors yow yaay tamit président du conseil de surveillance euh, bu direction euh, euh, de l'agence de gestion du patrimoine bâti alors li nga patrimoine bâti au Sénégal souvent ça fait l'objet de beaucoup de polémiques mm-hmm. ci wàllum tey jii rek ñu ngi Dakar Actu Ben démolition euh, bi nga xamanteni amone fi nga xamanteni mom moy ci Saint-Louis mais tay ci walu patrimoine bâti buñ ko doon wax ci sa gis-gis euh, nan la mel ci Sénégal euh, lan moy naturam ak tolluwaay bi lan nga ci mëna wax. waaw boo déggee ñuy wax patrimoine bâti de de l'État moy lepp lo xamné luy tabax la bo xamné état bi mom <laughs> ñun suufu kessé géré wuñ mhm. li ñuy géré mooy lépp loo xam ne immeuble lu ñu tabax mhm. état bi le ko ñun ñoo koy saytu mhm. alors président am ci gis-gis bu sori donc direction la direction du patrimoine bâti de l'État mais en bi 2012 mu ne man dama agence de gestion du patrimoine pour que euh, état xam nga état ce ñuy wax li mu moom dañ naan alalu ñëpp la alalu ñëpp la kenn du ko toppatoo. Mhm. alors que valeur la dama lay jox rek benn exemple li nga xam ne mooy li gën a contradictoire mooy état bi moo fi ëpp ay kër te moom mooy premier locataire moo ëpp lu muy luwe. moo fi dàq luwe waaw xam nga loolu amul amul amul amul sens. sauf que wàññeeku na jamono ji. waaw mais loolu tax nag loxo président ak gis-gisu président. Mhm. moo tax mu def ko agence munoo nek ëpp fi ay kër ba pare nek premier locataire loolu mënut a nekk. Mhm. loolu yooyu yëpp dindi. ba pare bu njëkk ba mbir mi charge locative état bi dafa bëri woon. ñëpp mhm. lañ doon luye. par exemple indi ben directive biñ créé agence bi léegi amatul benn fonctionnaire bo xamné ñu lay loger loolu jaxna na. Mhm. ça coûté à l'État état presque seize milliards par an. loolu mënut a nekk ministre bi day am logement chauffeur am logement chaque gi nii ñëpp tout sur le dos de l' état. le président am ñooy mu ne loolu dañ koy arrêté loolu dafay dañ dañuy revaloriser seen indemnité ba pare ñu arrêté mais bi ñu ko defee ba léegi ay économie lu jàll ba pare nag mu ne il faut que léegi alalu état bi ñu valorise ko jox ko valeur par administration ci dëkk vitrine la. Mhm. vitrine la boo duggee ci dëkk. dem ci administration ci nga xamé ndax dëkk bi kat amna ki et puis l'administration doit se respecter. moo waral gis nga le projet des sphères de Diamniadio. tey ku fa dem li nga xamné vraiment on est dans une administration moderne. hmm avec tous les standards. non bu njëkk ba da ngay gis benn ministère bo xamné da ngay tabax ben kër luy ko def ko ministère. boy bureau. Mhm. c'est pas conçu pour des bureaux. boo demee tey Diamniadio da nga xamné si c'est conçu pour le bureau et c'est vraiment te bu yàggee état bi moo koy et c'est sur des des partenariats public privé valoriser benen bi moy valoriser le patrimoine de l'état parce que ni ngi gis maanaam bo demé par exemple ci région cœur de ville yi ngay gis yëpp ay bâtiments yu yàqu la yu lii mais ça appartient à l'état mhm. Mhm. Hein? Mhm. ay nit ñoo ñëw di ko squatter léegi dañuy dem ci valorisation président benen xalaat def ay sphères administratives régionales maanaam daanaka ay building yo xamné région bo dem tu vas retrouver tous les services ñu regroupé ko

Mais l'autre, ça a contribué à baisser le coût du loyer. parce que l'État était le plus grand locataire Tout le fait loyer mm-hmm. par exemple l'État a fait 1 million par mois L'État a fait 1 million par mois mm-hmm. Mm-hmm. donc voilà un peu c'est euh, li nous absolument alors euh, CCR actuellement euh, gagné ngeen élection yi. Mhm. am na yeneen euh, liggéey yoo xam ne ngi leen xaar sur le plan politique. Mhm. alors seen ay perspectives jamono ñi lan la. Mhm. parce que on ne parle plus de d' élection renvoyé nañ li nga xam ne moo di élection locale ñu ci dialogue bi. perspective ak ci lan ngeen di présentement yéen euh, CCR. bon CCR Légui, bon xam nga léegi avec le nouveau coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr. moom moom donc peut-être ñu ngi ci liggéey bi mos a nekk. c'est-à-dire nek une force de proposition pour le parti. C'est bokk na ci structure yi nga xam dynamique de parti d'ailleurs nous ñu ngi koy wax yaa ngi may trésorier bi. ñun man nous, ma fàttaliku structure ba nga 2009 nous avons commencé à léegi activité yep vous êtes constante également. waaw mhm. activité yep Nous parti bi di ñu subventionner wala mhm. évidemment des cadres qui étaient engagés depuis 2009 et qui le restent encore. Mhm. et qui ñi nga xamné ñom lañu war di sen parti bi. di di aussi à la base parce que tu vas trouver des maires, tu vas mhm. trouver des présidents de conseils départementaux, maire là, mhm. le coordonnateur c'est un maire. Mhm. Hein. Des ministres également. Des ministres donc nous sommes une force de proposition du parti di defal président et proposition du ko xalaat du ñu xalaat aussi di monter en première ligne pour défendre le le le le parti une élection pour nous qui tout le temps donc tous les mardis on se réunit et souvent ñu def des activités am nañ des des des trucs yoo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñoo créer par exemple les les les vendredis les rendez-vous républicains am na yu bëri ñu ko def mm-hmm. hein, les jeudis marrons ak yooyu yëpp dañ koy organiser ba pare am organisation boo xam euh, c'est sur l'ensemble du Sénégal c'est-à-dire on a ce qu'on appelle des CCR départementales maanaam département ku nekk dañu am antenne mm-hmm. boo xam ne dafay dox def activités c'est une sensibilisation, c'est une vulgarisation donc de participer au développement du département C'est ça le départemental. Il y a lañ traiter des thèmes sur le dialogue national. Il ci waa Kaolack ñu ubbi fay antenne xamal nit ñi dialogue national c'est composante Il mhm. def nañ ko Saint-Louis def donc là, c'est une structure vraiment dynamique. Nous, mhm. hmm? ngi ñu préparer préparé rendez-vous républicain. Bah, on va inviter toutes les composantes tous les du parti que ce soit les jeunes les femmes pour nous échanger sur la situation politique euh, du pays et que euh, proposer proposez euh, son Khaladal. parce qu'on a notre mot à dire mhm. sur dans le parti et sur la situation économique politique économique et sociale du tout à fait. Dernière question. Euh, sortie de Khalifa Sall de prison, mhm. rencontre entre les présidents euh, Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'actuel. Mm passion euh, décrispation de l'espace politique boobu en tant qu'acteur. Mhm. Euh, ban jàngal nga ci am. Mhm. jàngal bi ma ci am mooy jàmm moom du ëpp. jàmm day ñàkk a doy rek mais du ëpp. te jàmm moom moo gën loo gis. te euh, ñu nekk muy Sénégal ak perspective yi fi nekk yaakaar bi ñi ñi am jàmm ak jàmmoo rek moo ñu ji effectivement donc nous, nous ñu def ko saluer mhm. parce que mm, Sans nañ les gens n'ont jamais pris les armes pour régler les problèmes mhm. toujours dañ ko doon waxtaanee réeroo ak rox mun na mun na mais vraiment que président Ablaye Wade ak président Macky Sall jubóo loolu Nous ñu soxla ci réew mi mhm. que Khalifa Sall soit élargi de prison Nous aussi lu ñu soxla ci réew mi mais nag ça ne veut pas dire que yoon dafay continuer am ci dëkk bi. ça veut pas dire que c'est pas une c'est pas une compromission non non yoon da na continuer am ci dëkk bi mais dinañ toll foo xam ne maanaam décrispation dafay baax jëlaat un nouvel élan d'autant plus que président il faut voter dialogue national Nous munoo voter dialogue nag Il faut da ngay woote ñi bëgg a ñëw ñu waxtaan waxtaanee réew mi te réew mi rek tax ñuy waxtaan pas des intérêts crypto personnels. Le mm-hmm. président tu loolu la nekk dafa faut ne réew mi moo ñor bëgg na waxtaan bëgg nous partager nous nous jàmmoo pour que parce que nous nekk un an de croissance. Un <laughs> an de croissance ça ne peut être pérenne sans une stabilité politique. <laughs> sociale parce que réew moom bu une stabilité rek am une chance pour dem. Sénégal loolu la ëppalee booy xool ci région bi sous-région bi fa nga xam ne alal. <laughs> amul jàmm nit ñi amul donc jàmm d'abord après nous créer des richesses et effectivement Femme Diop la santé. remercier. Mhm. Uh-huh. voilà alors nous rappelons que suis euh, maire la commune de également président du conseil de surveillance. de l'agence de gestion du patrimoine bâti je également le trésorier général du euh, cadre de pour la république numéro mission en ligne bi gërëm ko ko également technicien. qui nous yi nga xamné à travers cette émission en ligne di leen jox rendez-vous benen yoon ak invité d'ici là l'information continue sur Dakar Dakaractu la référence merci beaucoup